ndax euh, ay jafe-jafe ak euh, ndogal moom moo ko ci mujj fekk. Euh, mm-hmm. jëkkëram mi ngi ci ligne bi Maxu ñu ngi lay nii Maxu Mandela. la Pape Makhtar ñu ngi ziar ngi nga am jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah. ça di fàttali ni yow yaay borom borom këru Coro Coro Mandela. ñu dégg la ngay def ay révélation ci condition yi nga xamante ne nekkee na ko déjà Coro Mandela suñu sœur boobu ci yan condition la nekk jamono ji est-ce mi ngi si jàmm bu baax. des conditions très difficiles ah très très difficiles parce qu'en fait euh, yéen li nga xamante ni je vous prends comme témoin parce que yéen yéen a doon liggéeyandoo ak moom ci koor gi euh, koor gi euh, elle parvenait difficilement à terminer les émissions yéen da ngeen daan ngeen ko gis à chaque fois elle pouvait pas tenir trente minutes yoo xamante ni du jog wàcc mais donc comme yéen da ngeen ko wóolu woon nag waa kër gi wóolu ko ne ko dénk ko seen émission bi nga xamante ni moo nekk ci moo de ndaw ci koor gi elle voulait pas décevoir moom c'est une femme de défi elle voulait pas décevoir mais bon xamoon nañ ne après koor gi moom dafa waroon jël repos donc parce que nit ki tamit bu demee ba euh, ëmb ba tollu presque sept mois donc yaakaar naa am na yu bëri yoo xamante ni mënoon na ko doot ko mënati quoi donc ci euh, ba muy jeexal je pense à deux deux jours de de la fin des des émissions ci lañ ko ci lañ ko convoqué mm-hmm, mm-hmm, donc mm-hmm. oui vas bi ñu ko convoqué wax na ko ñëw na ci ci rajo bi wax ko fa euh, ci télé bi wax ko fa ne leen dañ ko convoqué donc man je trouve que ne euh, Thioro Mandela elle est justifiable comme tout le monde ah bu ñu ko convoqué dafa war a ñëw toutes les convoquées ñëw na donc euh, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé mhm. parce tamit man li ma li ma gis mooy nit doomu aadama dafa am loo xamante ni daf ko yeyoo ci ay cër yoo xam ne dañ ko ko may mhm. mais doomu aadama kenn ko toroxal mhm. rawatina bu nekkee jigéen euh, nit koo xamante ni donc euh, da nga ko convoqué bi bon man ak moom yeewu jël oto dem ak je pense ak Salma Salma Salma était témoin ñu ànd dem euh, euh, cybercriminalité dem ba ñu demee foofu noonu donc euh, elle a elle a elle a fait son interrogatoire comme ko woon wax nañ ko lii lañ lay toppee lii ak lii laaj ko ay mu tontu laaj ko mu tontu parce que c'était c'était pas parce que nit koo xamante ni ba ko juddoo ba léegi mosoo am plainte musoo musoo musoo am plainte boo duggee police carte d'identité la soo ñëwee ñu lay laaj di la taxal ci yoo xamante nii kat parce que bett na la dina la jaaxal trop quoi rawatina koo xam ne dafa tollu diggante dafa toll diggante ba ba ba ci la ko perturbé stress ak euh, grossesse àndul ci la ko perturbé léegi ki ko doon defal interrogatoire mu doon ko xam ne premier jour elle m'avait dit que euh, la dame l'avait respecté ñu taxaw wax mu explique ko ba mu defee ba pare biir bi commence mu am ay palpitations yu métti mhm. euh, mu ne ko ñu jeexal ñu dem hôpital ci la dem ci la dem hôpital bi mu demee hôpital premier jour deux jours jour boobu dem na ñaari hôpital dafa dem hôpital ñu jox koy affaire ba pare ci guddi gi tamit mu amaat problème affaire bi xaw a métti mu ñu delluwaat hôpital duñ mhm. delloo hôpital médecin bi jël ko nekk euh, waxoon nañ ko ne kol bi dafa dafa wàcc donc Euh, euh, la solution donc man je suis pas médecin mais médecin yi xam ne la solution mooy le repos le repos parce que ku ëmb sa kol wàcc day xaw a difficile boo am na euh, déplacement yooyu def rek li nga ëmb mën mën na mën na nax saay mhm. donc ci cadre boobu ci la ci la ci mais bon bi mu ñibbi siwaatee amoon na dix jours de repos bi mu ñibbi siwaatee le lendemain donc en fouillant le les journaux revue revue de presse bi ci lañ gis l'observateur publier que ne Coro Mandela dañu ko dañu ko woo man je voudrais grand vraiment éclaircir le rôle de l'observateur dans tout ça hmm. mais bu ñu bu ñu convoqué Coro Mandela Coro Mandela moo ko war a yëg hmm. wala moom lañu war a jox convocation bi pourquoi l'observateur le premier jour l'observateur génne na ne Coro Coro euh, interrogatoire bi nii la demee audition bi nii la demee mais audition boo xam ne pareegul dafa war a ñëw motal ko naka la nu mu tëddati l' observateur ak IGFM génne ay wax yoo xamante ni yow kat man ci presse ci presse laay liggéeyee je pense nekkuma bokkuñu groupe mais xam naa comment sa se passe mm-hmm. war génne ay éléments mais lii lañ fa coro wax lii la fa coro wax daf yaa ngi dégg bu baax mm-hmm. Mm-hmm. mel ni un acharnement un acharnement boo xamante ni Coro dafa am lu mu leen def wala dafa leen fayal seen tax mais chaque trente minutes ñu génne ne Coro lii la fa wax Coro lii la fa yeneen yeneen yeneen siti ko bu ñu waxee loolu Coro bi mu gisee ne kii kat ñu ci l'observateur bind na ne Coro dañ ko convoqué waat le mercredi donc elle m'a dit papa am dafa mel ni kat l'observateur bind na ne dañ ma convoqué mercredi alors que man j'étais pas au courant yëguma ko et son avocat mën na ko seede je pense am ko mooy euh, euh, Aïda Savara bi nga xam ne maître Moussa moo ko boole ma koy gërëm tamit ci liggéey bi mu def mm-hmm. mettre def ci liggéey bu rafet ba mu ñëwee ba ba mu ba moom la jotul woon convocation. te yaakaar naa ne nit ki boo ko convoqué mu ñëw. mais ay la yéwén mais convoqué boo ko bu dee da nga ko nar a convoqué waat mu am repos sax yow yaakaar nga ne dafa war a ñëw. Hmm. mais convoqué ko bu ñëw. woowaat hmm. ko ni ko defoon woo ko téléphone ne ko ñëwal premier jour bi déplacé bi dañ ko woo mu ñëw mais pourquoi toute cette humiliation. Hmm. nga ñëw këram wàcce fa oto wàcce fa ay nit. devant sa fille nga jël ñu dem ne ba mu ñëwee parce que bu ñu ma envoyé bi ñu ma woowee ne ma bi ma gisee la l'observateur bi même pas trente minutes ñoom ñu appelé ne na ñëw dañ leen war a indil euh, convocation mm-hmm. pour après Korité gi ah je me suis dit madame nee na dañuy indi convocation mais bon bon après bu ñu coupé noonu ma waat leen ma ne leen est doo leen bàyyi man ma ñëw jël si ko ñu ne ma noonu ñoom ñoo ko war a indi à la règle ma ne leen ok c'est bon apporter ça ñu ñëw bi ñu ñëwee ba pare toog rek na may xaar ñu indi ñu jox ñu euh, convocation ñu ne est-ce que pare na pour ñu dem ma ne ko ah, non ñoom loolu de mu ne ma ne ko ah, déet après j'ai appelé son avocat maître Moussa Sarr mu ne ma comme ñoom gis ay situation bi ñu mel ni toro ils prennent la responsabilité lu ko dal ñoom la est-ce que xam nga benn affaire li may wax nii yëpp dafa am seede coro bi mu bi mu bi mu demee hôpital bi mu demee euh, euh, kii euh, cybercriminalité cybercriminalité mhm. dañ ko bëggoon yéegal te dégg il paraît tey ji laay am certitude que ne dañ ko yéegal on cinquième étage mais imagine li ko xam ne ni risque yooyu mais risque yooyu la moo ko fi jar ci publication ci lien mais nit ki su defoon dara lu grand sax ñu ne def sàcc dafa dara sax mais ay la yiwén koo xam ne ne leen ne la grossesse dafa am ay risques. Mhm. nga yéegal ko ba cinquième âge pour def benn audition audition boo xam ne mën nga ko def ci suuf il y avait une volonté manifeste de l'humilier te après soo leen gisoon image c'était vraiment triste. Mhm. soo leen di jooy. Mhm. oui. xam naa ne dina jafe eh, nga dellu si ci mbir yi te sa xol du tooy euh, mais di la jaajëfal bu baax a baax liñ ci soxla woon yaakaar naa am nañ ko ci ci ay information euh, Moustapha lii mën nañ ko tuddee voie autorisé parce que borom këram la euh, donc situation bi nga xamante ni Coro dund na ko moom xam na ko bu baax a baax te yaakaar naa ni li mu wax aussi témoin la tey li mu wax nii renseigné renseigné na Sénégalais yu bëri yi nga xamante ni amuñu woon yenn information yi. Euh, forcément sa xol day naqari mais di wax euh, boroom këram maxu moomu ne ko il faut tenir bon et je sais que il va euh, tenir bon man xaw ma ne woon sax tey nag Pape da ngay wax ci affaire Thioro mais ça tombe bien xam tax ma ne ça bien parce que man ak Pape Sané mii toog mhm. lépp loo xam ne def nañ ko ci mbir moomu mhm. ñun ñaar ñoo ko ànd mhm. Euh, keroog bi ma ñëwee fii keppaar gi. xawmatuma ban bés la. am na lu ma doon jóg lu bari di jóg di génn di ñëwaat. Mhm. ba aw Diop njaay naat ba euh, borom ñaari galo ñaari soxla xaw ma nu nga ko waxee woon. booba coro mii laa doon waxal. Mhm. parce que bés boobu lañ ko yónnee convocation. Mhm. mu woo ma fii ne ma yónnee wuñ ko convocation dañ ko woo téléphone. ne ko na wuy si. ma ne ko man li ma lay euh, suggérer mooy bul wuy ji mukk te waxoo ci ak avocat. ba mu wax la ne defal lii ak wala defal le mu dem waxtaan ak maître Moussa Sarr ak maître Abdinar Ndiaye ñu ne ko comme dañ la woo téléphone rek demal man maa kay koy tooñ naan ko xam naa ne bon comme affaire topp kaa yooyu yow danga doon liggéey si affaire toile certainement am na lu ñu la bëgg a laaj. Hmm. xëy na nga ci xam dara. ci laa woowee Pape Sadi mii ne ko Pape mu ne maa ma ne ko euh, suba xamatuma ban bis la woon lu mu teel teel. Hmm. teelal a jóg. bu coro dem mukk cybercriminalité te jiituwoo ko fa. Mhm. na nga fekkee la fay xew yëpp. soo mënee fexe sax pour ñu jéem a xam pourquoi on on l'a convoqué jéem ko. Mhm. moom Pape aussi mi ngi nii toog. mu jël téléphone am. di ca ne di ca ne di ca ne di ca ne ba keroog bi ñu ko convoqué ba mu dem wuy ji bañ libéré waat ko. Mhm. man bi may yeewoo suba moom mii laa njëkk moom Pape Sané mii. bi ma yeewoo gis ay appelu coro dama tiit ne lan moo xew. parce que boobu je me disais que ni bon convoqué dañ ko déglu nañ ko xëy na dañ ko téye wala dara. bi ma woowee Pape Sané Pape moom wax ne ma li mu ci mujj dégg mooy bàyyi nañ ko ma ngay ñibbi këram. Mhm. effectivement ci laa woowee Salma Ibrahima faal mu ne ma ñi ngi ñibbi taxal ma paas la coro mu paas ma ko ma wax ak moom. oui je savais. qu'elle ne se sentait pas très bien. Mhm. parce man dafa am lu ma lu ma dal man euh, du may euh, je sais pas comment expliquer ça naa ci ñëwaat suba ci live bi ma nar a def mais man du may du may xool nit souvent ci ay gët ak gët je ne sais pas. Coro mhm. euh, dama ko fekk fii ci salle maquillage bii ci biir koor gi. Mhm. ci biir koor gi ma fekk ko ci salle maquillage bi mu tëdd ci kaw taabal jooju. bi ma ñëwee gis mu fa kenn moom rek laa fa gis quoi ma ne ko Coro ça va mu ne ma ça bien ma ne ko ani mu ne ma xaw ma lu xew. bi ma ñëwee parce que li ma def salon d'honneur bariwul je voyais que bu ñu def émission bi comme ni ko borom këram waxee léegi mhm. pratiquement chaque trente minutes coro tekk micro am génn mhm. dina tekk micro bi génn ba mu yàgg mu ñëwaat toogaat xam naa kii seetaan du ko xam après ci laa laaj xale yu jigéen yi ne ma mais yow coro mii jigéen wérul la moo tax mënul toog lu yàgg ma ne ah je comprends maintenant mhm. gis nga keroog bi ñu ne ñoo coro yóbbu nañ ko euh, defeere nañ ko mu jàkkaarloog procureur après defe naa pape mi moom ma woo wax ma ko no boroom këram moo ma woo. Mhm. moom maxu dama Moustapha nee nañ dañuy yóbbu Coro commissariat bu fanaane fa ma ne ko loolu mënta nekk c'est impossible. Mhm. parce que jigéen wérul mënul fanaan commissariat. surtout koo xamoon ne amoon na une grossesse difficile déjà. ci laa wooyee Pape Sané mii. bi may daanaka bi may raccroché ak Pape fi ma toog di waaj a ndogu defe naa heure yooyu la. Mhm. la ma Salma Ibrahima Fall mii woo di jooy. ma ne ko qu'est-ce qui se passe mu ne ma euh, mu gaaw leen parce que Coro dañ koy indi ci commissariat mu daanu ko daanu mu ne waaw ma woo Pape ne ko foo nekk mu ne maa ngi côté Yaraax defe naa. Bel-Air waaw bel ma ne ko Pape bu ñu dogee nañ nañ nañ daje ñu dem commissariat. Mhm. keroog bi ñu dogee ba pare avant may départ lañ ñu wax nañu yóbbu nañ ko hôpital principal. Mhm. fa lañ daje man ak moom Pape Sané mii ak man ak boroom këram. ak famille wu Coro. keroog hôpital principal bi ñu euh, xoolal bi ñu dogee ba presque vingt deux heures fa lañ nekk. Mhm. man kenn nettaliwu ma maa gisal coro ak sama ay bët. ñaari alkaati ñoo ko indi foofu. Mhm. des gent très gentils. Mhm. bi ma ñëwee nuyoo naa ak ñoo waxtaan ak ñoom. ba dugg ci fi nga xam ne fa la nekk dugguma ci saal bi ñu ko hospitalisé mais gis naa coro ak mes propres yeux. Pape man du ma médecin. du ma enquêteur. du ma magistrat du ma dara. mais am naa soxna. jigéen wérul coro bu ma gis xel wérul xalaat nga koy téye ci commissariat waxuma la wóoruma la di ko yóbbu ci kaso je l'ai vu de mes propres yeux ci fi ma taxaw ci la médecin yi woo euh, benn sage femme en tout cas jigéen la man je fais pas di xaw ma xaw xamee ma sage femme ak yooyu ci la jël téléphone bi jox ko alkaati bi maa ngi taxaw pour mu wax ak certainement le médecin kooku moo ne ko kii mënul dem fii lay fanaan ci sama kanam la alkaati bi waxee ne kon moom na woote xaw ma fan ñu indil ko ay bagage am parce que moom alkaati bi par moom mënul bañ a fanaan fii ba tax ñu ngi euh, mi ngi wax ak kii yooyu ñu naan euh, fii amul fu mu mën a kii ak yooyu mu ne moom moom mënul fi bañ fanaan parce que kii elle est en garde à vue mënu ko fa mm-hmm. femme boobu ci lañ jóge man ak Pape Sané ànd dem ñibbi ñun pour ñun fa fanaan bu subaa ñu kii maa ngi naan ko te Pape euh, may ma rek parenthèse bu gàtt man journaliste la mm-hmm. man journaliste la mhm. Sénégal gii bari fi bari wu fi ay homme politique yoo xam ne wala ay kilifa ci réew mi yoo xam ne man de mën nañ la la Moustapha de woo na ma dig euh, ne ma naa ko dimbali ci nangam. intervention du ma ne amul mais bariwul. Mhm. mais keroog Pape Sané mu ngi nii. Mhm. ku ñu yaakaar ci réew mi. que ni buñ ko woowee mu dimbali ñu coro bañ a dem prison on l'a fait. man dem naa ba woo un ministre de la république. ne ko damay ñaan rek sukk ñaan. su fekkee ne man nga ci lu tuuti tuuti wooteel wax ne nañ ko bañ a yóbbu prison buñ ko soxlaa dinañ ko andi. parce que man juli dama gis état woo. woo ay magistrat loo mën. moo tax le lendemain bi ma borom këram woowee ne ma coro non euh, euh, Ouleymaane bi nekk fii moo ma ko wax. ne ma coro dañ ko placé sous mandat de dépôt. Pape Keroog j'ai pas pu euh, j'ai pas pu retenir mais lan xam pourquoi. Mhm. parce que dama woo. borom këram. Mhm. ne ko Ari Coro mu ne ma mi ngi ci biir moom ak avocat ma ne ko est-ce que dañ ko placer sous mandat de mu ne ma yëguma ko. Mhm. dégg naa ñu koy wax rek. affaire boobu metti na ma métti boo xam te parce que bugguma ko woon yëgal ne dañu placer boroom këram sous mandat de dépôt. Mhm. bon c'est mm. bon. keppaar gi Euh, pa Matar euh, émotion bi il fallait que nga dem hôpital keroog ci guddi. gis coro euh, pour comprendre lii dal Moustapha ak lii dal léegi boroom këram. wax fa dëgg yàlla ni mu ko waxee noonu la demee te Pa Matar yoo xam nga ma man je suis critique vis-à-vis des policiers et des gendarmes. Mm-hmm. et des et yoo loolu xam nga ko. mais gis nga Pa ci bii affaire. il faut rendre hommage aux enquêteurs de la cybersécurité waaw man xam dama je le di en toute franchise su ñu demee ba bañ a retenir Thioro garde à vue parce que moment ba nga xam ne la fa coro nekk yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Pape Matar ah moment ba mu fa nekk yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Thioro toutes les quinze minutes dana jóg tàggu dem toilette toutes les quinze minutes dana jóg tàggu dem toilette loolu xam nga euh, lu muy wan mooy que son état était d'une extrême gravité jour boobu à la cybersécurité waaw mais ndegam enquêteur bi ci boppam moo jël moom décision responsabilité xam ne que ndaw si ma fi yore depuis deux heures muy dem di génn di dem toilette di ñëw ndaw si état de santé am n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue ndëgam enquêteur bi moo jël responsabilité boobu ne ko demal nga nga nga ñubbi mais madame demal nga xooli sa médecin mais loolu rek waroon na tax ñii nga xam ne ñoo nekk parquet mooy maanaam le procureur de la république munoon jël en compte le côté humain de cette affaire là néewuñu dafa def lii wala deful lii de mais on parle pas matar d'humanisme oui gis nga justice bu àndul ak humanisme nekk humanité nekkatul justice. Mhm. nekkatul justice dama ne la pour que nga comprendre l'état dans lequel se trouve Moustapha Diop il fallait que nga fekkee les différentes étapes garde à vue bi euh, après garde à vue bi retour de parquet bi après retour de parquet bi daanu bi mu daanu ak évacuation biñ ci def loolu ku ko fekkewul munoo comprendre un peu ce qui a ce qui ce qui révulse ce qui a révulsé son mari révulsé Moustapha Diop mii révulsé Salma mii Ibrahima Salma Ibrahima Fall wala man nii moi sax euh, voilà quoi j'ai tey di j'ai un peu de retenue par rapport à ça mais li ma mën a wax daal Pamatar c'est de la cruauté cruauté c'est de la cruauté mm-hmm. lii ñu teg Salma euh, astafurlah li ñu teg euh, Thioro c'est de la cruauté pure et saine. être que médecins yi am na li nga xam ne duñ ko wax officiellement ils sont sous serment. Oui. mais très sincèrement gis nga guddi googu kenn ki bi mu ñëwee di defaraat otom pour gën a gaare daf ma ne yenn indi kii moom mu ne ma saa waay mu ne fexe leen ba xale bi bu mu dugg kaso mu ne ma ça peut pro mu ne ma nii nii nii on a même peur que fii ak fajar mu wasin mhm. c'est-à-dire un mu ne ma ragal nañ ko mu ne ma parce que euh, xaw ma lan dafa dilaté nu mu ko waxatee am na nu mu ko xam col bi dafa ubbi dafa dilaate mu ne ma mun na wasin fii ak fajar on est de tout faire pour wàccee stress bi wàccee tension bi mais lu mel nii su ko dalatee euh, ça peut être vraiment euh, préjudiciable pour elle. waa mm-hmm. mais mais Pape Matar enquêteur bi nga xam ne kii est sous les ordres du procureur de la République mu mun a taxaw xool ni que kii wéerul duma ko garder à vue bàyyi ko mu ñibbi wax fa dëgg yàlla su procureur. tenirul compte de tout ça fajar mooy cappantati mu yónnee na leen da leen jëli ko par la force indil leen ma ko mais acharnement bii ñuy wax Pape Matar kenn mënu ko dindi. Mhm. non kenn mënu ko dindi. Mhm. Mhm. kan Pape daf may fàttali. Euh, benn wax bu fi capitaine Touré waxoon. à bàyyi bàyyiwuñ ci woon attention trop. te keroog bi ma li ma fekkee loolu la sama xel njëkk a dem capitaine Touré ñu nekkoon nañ dem jàppi Ndeye Khady Ndiaye. ci hôpital principal fekk mu mu am doom bu prématuré. ci nettali capitaine Touré dafa wax ne procureur dafa leen wax moom ak euh, son patron ne leen seen xolu yërmande yi. moo leen di sonal est-ce ngi fàttali loolu. oui c'est vrai c'est vrai loolu. effectivement tey jii enquêteurs yi nga xam ne ñoo doon entendre euh, Thioro. Mm-hmm. xolu yërmande lañu àndal. Mm-hmm. man alkaati yi ko indi hôpital principal ñaari jeune lañ déjà dem naa ba àgg ci ñoom. Mm-hmm. ba ñuy tooñante nii. ñun ce nu fale mooy faire tout pour que coro euh, le lendemain bu ñu ko convoqué avocat am dem wuy ji yóbbu certificat médical bi nga xam ne effectivement am na ko. Mm-hmm. mais convoqué wuñ ko dañ ko jëli. dañ ko jëli c'est ça la réalité. Mm-hmm. dañu woo borom këram ne ko dañ ko indil convocation mooy leen mën naa ko gis ñu ne ko noo wax ñu fu mu dëkk. Mm-hmm. mu ne mu wax leen fa mu dëkk tegtal leen ba ñu agsi këram ñu ñëw ne ko na sol yëreem ñu yóbbu ko. koo xam ne bi nga koy yóbbu déjà pour nga dugal ko ci oto dafa jafe pour dugg yéegal ko ci oto borom këram dafa jafe bi mu daanoo commissariat principal dégg naa borom këram li te loolu Salma fekke na ko. Mhm. que ni daf leen euh, sage femme bi fa njëkk ñëw da leen na ngeen fexe tànk yi bañ a écarté wu. mooy li Pape doon wax sànq. Mhm. parce que jigéen wérul la nañu nañu dajale tànk yi buñ koy jàpp di ko dugal ci oto bi. mais dans tout ça comment est-ce qu'on peut une personne comme ça en prison koo xam ne yow mi ngi fii ci réew mi. mais ñii ñu ñii ñu takkal ay bracelet électronique oui. mais ñoo gën a wér coro fuuf fuuf ñii ñu may liberté provisoire ñuy dox ci euh, ci ci réew mi di doxi seen soxla ñoo gën a wér coro fuuf hmm. ak lu coro mënti def man depuis le début Euh, j'ai j'ai fait un choix mooy je me prononce ci lan la def ak lan la deful te am naa ci sama ay point de vue bés bu ñu ci eggee dinaa ko wax hmm. mais man li ma bëgg a wax mooy li Pape Sane wax sànq mooy l'humain hmm. l'humain bi nga xam ne moom la yàlla moo mooñaal ci doomu aadama bu nekk nga xam ne ñun duñu ay doj da ngay gis loolu xari nga bég mbaa nga mbaa nga jooy mais loolu moo war a nekk ci magistrat nekk ci keneen ak koo mënti doon nag l'humain c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai entendu dire que Léopold Senghor disait qu'on ne fait pas de la de la politique comme euh, un avec un cœur de jeune fille mais ki nga xam ne day day day àtte di yóbbu nit kaso am soxna am am ay sœur am lépp xam ne kii mën na ko bàyyi mu ñibbi këram te heure bu ko soxlaa dina ko jot mën na sax jël ay disposition yoo xam ne dana toog këram du fa génn am na possibilité bi am na possibilité yóbbu ko foo xam ne du fa bouger mhm. mais du doon prison mais malgré tout ils ont préféré la mettre en prison li ci mettre Moussa Sarr wax rek moo ci am mhm. qu'ils assument leur responsabilité jusqu'au bout mhm. Mhm. jusqu'au bout mhm. parce que tey réew mi nit def na fi lu fi gën a garaaw fuuf te dara jotu ko mi ngi këram di lekk ceebu jën bu neex su guddee mu reere ginaar du jàpp nañ fi nit ak trafic de faux billets lan moo ko gën a garaaw ci économie wu réew kooku animu mi ngi dox soxla ak yeneen ak yeneen ak yeneen Idrissa